ci ngeen jëf waxi Macky Sall yi woon keroog 31 décembre moom la yéene kay xëye tey 2 janvier discours à la nation bu président national bi li ci soleil national jàngat moo di njiitu réew mi Macky Sall mu tegoon ab tànkam ci social bi teggiwu ko firnde bi journal bi nañu mooy président nee na bourse de sécurité familiale yi tolloon ci juróomi junni danañu ko yokk yóbbu ko ba ci juróom-ñaari junni dafay jóge ci 25000 dem ci 35000 wax na it ñeenti téeméeri milliards ak juróom mu di 450 milliards yu état bu Sénégal fas yéene génne ci 2023 gi ngir subventionné ko njëgu dund énergétique yi koom-koom gi ak dundinu askan yi maanaam économie bi ak sociale bi direct news nee nañu mooy ñaari ponk yi nga xam ne njiit mi fësal na ko bu baax ca message ba journal le mandat xëy fësal li wax moom Macky Sall ne nguur gi fas na yéene yëkkati 450 teg ci taabal ji ngir wooye falal askan wi seenu dund ci at mu yees mi ñu nekk at mi ñu nekk mu di li ci di yitte maanaam urgence l'observateur mi ngi ñu koy wax boole mi lëj-lëj yi am ci géopolitique bi ñaaxo-ñaaxo yu ci justice bi ak aku transparence dig leerange ci yorinu réew mi journal l'info nañu moom li mu gis ci message à la bu Macky bi moo di doxalinu nit ko troisième nekk cim xelam tur nañu loolu dafa leer Macky caaxaan génneewul cim xelam troisième te ñi am dégg-dégg ku ci dégg li mu wax keroog ca Tamba war a xam ne Macky Sall na troisième candidature ci tournée bi mu doon def yi kaay xëy na di ñu jukkil sànce yu mag yi waa réew mi di xaar njiit réew mi bokk na ci fexe ba génne askan wi ci ndóol gi ñu nekke fexe ba réew mi bañ a ci ma sàmba ba ci ma demba ngir mën a am lu mu dunde ndakaaru dana mel ne përi noone la ko journal Source A ci xëtamu njëkk lépp rek ngir tënkal ñu ni mu jàngatee message à la nation bu njiit réew mi bourse sécurité familiale yi Macky Sall nee na danañu ko yóbbu ba ci milliards yi ñu war yu ñu war a defaraat ci 2023 gi 115000 lampadaires yu ñu war a séddale ci ñaari junniy wilaas yii yëpp xibaar la yu suur soit juqee ci discours njiitu réew mi réew mi quotidien bind ne keroog 31 décembre Macky Sall concert de réalisation la doon def Ousmane Sonko concert de casserole la doon def Walf Quotidien nañu waa yeewi askan wi ak nañu ko digge woon noone la ko defee bool yeek cin yeek pot yeek xott yeek xotaat yi lépp doon jollee fu nekk ci réew mi suur soit nañu ay mbuuca mbuuc ay xale yu toll ci fukkeet ak ñaar jàpp fukkeet ak benn ñoom la ñu gën gis ci concert de Yewwi Askan Wi woote woon ci mbeddi Ndakaaru yi ak ci banlieue ba ci xët mu njëkku la mandat Mamadou Lamine Massaly moo fa xëy di damat Karim Wade ubbil yéenekaay bi njiital parti bi di Union pour une nouvelle république yàkk na fa Karim Wade luy tàkkate du fay li Karim Wade wax ci at mu wees mi jëmee ko ci li mu jàppe mal gouvernance ci nguurug Macky Sall loolee moo naqari Mamadou Lamine Massaly ba tax mu tontu ko ba wis ko Massaly nee na waxi mal gouvernance Karim Wade ak ñi mu àndal war a mujjee wax ci réew mi mu ne 138 moom la sàcc bu ko fayoon chômage bi muy wax ci réew mi dina li ko askan wi di ñaan moom Karim Wade Massaly nee na mooy mu fay leen seen 138 milliards ba noppi nag soog di wax waxi candidature ak waxi mal gouvernance triple S doomi Double Less di Balla Gaye 2 jël bi ko booy Niang 2 daan démb mi ngi tege ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool sunu lamb bind ne daan rakk daan mag lii la booy ñan 2 def waa kër Double Less daan na fi saa kees démb mu daan Balla Gaye 2 ci ñaari minutes yu manqué juróom-ñaari seconde sunu lamb nee nañu ci la Boy Niang 2 piégé Balla Gaye 2 ko lise ko bind ne Boy Niang 2 dafa toroxal Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye mu di Balla Balla Gaye 2 bés bi le gis na la woon woon na Balla dafay bëgg a jeexal ma jeexal ak li ñu Walf Quotidien moo xew ca Saldé ga ca Fuuta yëral xët mu njëkk yéenekaay bi dafa am ñu seen mbokk faatu ñu demoon ci armeel yi doon ko suuli waaye ay yamb moo leen dàqe ci armeel ñoom ñëpp bu ñuy génn armeel yi yéenekaay bi nee nañu ay daw lañ fa génnee Touba Darou Salam Karo Soumari.com Gambrendi et la Beauty Malaysia Yumo Home Choice Sénégal ak marque bi di Total Tools ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi